ñu hmm. <laughs> ku mu munta doonoo fait ok est-ce que mës na la arrivé un jour nga bëgg a def dara benn projet woo kenn pour hmm. futuré ak moom mu bañ. bien sûr ba kan la. Euh, je sais pas projet bu mujjee bii nii rek euh, album bi yigo bi rek euh, bëggoon naa ci Viviane Ndour mhm. mais awuma ko. dafa bañ mënul ñaax loolu force la. lu mu la wax Viviane. Viviane lu ma wax disons que Viviane pour accéder si moom rek coow la déjà. parce que foog nga am ay euh, intermédiaires yoo jaaragum. protocole mais voilà <laughs> protocole boo buggee donc xam nga. Euh, boo demee aussi ba ba ba foofu bon li ngay jot un peu c'est euh, voilà projet yila là et, et, et ça se comprend normal Viviane. Viviane la daal tu vois c'est pas c'est qui c'est ça se euh, respecte puis on se dit que peut-être bu dul yoon yamul ci benn bu dul bii beneen yoon daal. mais découragé woon la. ah non non du tout man bu ñëwoon tey dama ñu def featuring damay de mhm. damay daw ñu dem def featuring bi. parce que j'aime ce qu'elle fait euh, fil naa dama ko fil musicalement parlant bu baax a baax donc c'est clair que tey bu loolu mënee am. Euh, wala mu war a am man damay damay damay yàqamti damay dem def ko avec beaucoup de plaisir. Même. est-ce que mos nga refusé kenn tamit featuring. waaw mënul ñaax aussi. Hmm. bu baax oui clairement. mos nga refusé ko kenn. kenn demande le featuring nga ne ko non je peux si si si si. c'est-à-dire bon ñun aussi les artistes am na benn kersa benn yenn saay booy demee c'est vrai que doo ko waxee noonu nit ki doo ko ne. da nga ko xeeboon wala yooyu noonu. mais yenn saay di nga ko comp tu tu comprendre quand même que ainsi par exemple euh, voilà maa ci lii wala maa ci lee donc je peux pas faire ce featuring ak toi. Mhm. bu ma sañoon ñu xaar ba jamono et tout mais en vrai c'est que tout simplement amoo feeling bi def ko ak moom. donc oui man tamit euh, am na ñu ma koy refuser et c'est normal question de feeling artistique dafa am solo yëg-yëg bi daf si am solo pour man quoi bu fa nekkul pas obligé de forcer certaines choses mais aussi faut pas oublier que showbiz lañ nekk yenn saa si baax bu ma gisee ni artiste bi ma def ak moom ça m'apporte beaucoup. Mhm. yenn saa yi aussi on le fait. il faut dire les choses faut être honnête donc loolu tamit daf si am hormis euh, yëg-yëg bi et tout dëgg la mais yenn saa yi stratégie bi dafa am. aussi c'est important c'est important. Mhm. Mm. alors lan ngay répondre ay euh, nit ñi di wax ne. ba nga mm. jógee reptile sa mm. carrière dafa gën a law dafa gën a wàcc. par rapport ak man fa je je leur dirais que bu ma fa jógee bu fekkoon dafa doon lëw rek comme ni ñu koy waxee ainsi fàtte nañ ma yàgg na en fait parce que quand même ça fait des années et euh, je continue d'être là je continue d'être présent donc euh, bon loolu moom je pense wax lay doon rek nii nii nii ci ci ci parce que rumeur yi il faut ma jox la yëpp. mais waaw waaw si la si la non man moom dama <laughs> koy. naa loolu bu baax dama koy <laughs> d'accord sax waaw.